mbokk yi jigi leen ñuy di leen ziar di leen baalu àq di leen baalu àq yàlla na yàlla boole ah, man la Gora Diagne président commission énergie en même temps membre de commission domaniale à la commune de Thiénaba ah waxtaan wi nag dafa am tuuti leeral rek yu ñuy leeral ci li fi jiboon ci fan yi passé ci ay nit yu di maire de la commune de Thiénaba en même temps conseil municipal yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune bi ñun nag ñuy ay membre commission domaniale le président bi mi ngi fi di Mori Gueye ak ñi ñu ko ñep di commission bi à commission bi ñi ngi doon cinq personnes ci lan ci problème de délibération yi nga xamante mo am ci commune u problème de délibération yi depuis ñu toogee fi ak tay di commune u depuis 2014 ak tay benn délibération mo fi massa am bo xamante sous-préfet approuvé wu ko boobu dafa amoon recours bu ci am te ñu d'accordoon ñoo wàññi ko woon ñu d'accorduñu waat amul benn délibération bu fi mas a tag boo xamante ni sous-préfet approuvé wu problème délibération ni muy demee mooy ki moom suufam wala ki ñu jox suufam moom mu def demande délibération boole ko ak photocopie carte d'identité am boole ko ak ki ko jox suuf sa photocopie carte d'identité ak plan de mansam bind demande am ca la muy doyee suufam ñëw déposer ko au niveau secrétariat su ñëwee jox ko au niveau secrétariat bi soumettre ko maire ñu woo commission domaniale jox leen ko ñun ñu dem sur le terrain suñu demee sur le terrain dinañ dem ca nga xamante nii moo joxe suufam laaj ko moom suuf sa fu mu ko jëlee ak nu mu ko jot ak nu mu ko joxee bu loolu amee bu d'accord ni moom moom suufam ñu enquête loola jaar ko ci ñoom ko bokkal askan wa ñoom bokkal famille ba yëpp ba loola leer ñu dem ca chef de village laaj ko avem ñu doog a avancé dem ba fa suuf sa nekk su boobaa nag ñun la ñuy def mooy def suñu rapport ñëw soumettre ko conseil bi le conseil est souverain conseil bi nag ñooy ñun ñu ñëw liiral leen rapporteur bi liiral leen seen rapport suñu rapport suñu leen liiralee suñu rapport bu leen convaincre ñu voté ko bu leen convaincrewul duñ ko voté te loolu la ñu yoon may te loolu la ñu def ñi nga xamante ni nag dañoo jóg taxaw di yàq deru maire bi di yàq deru monsieur le maire ak ñun waa commission domaniale amul benn délibération bu fi nekk deux depuis 2014 ak tey bu ñu mas a voté amul. jàkka jàkka am na fi. jumaa am na fi daara am na fi te dungu ñoo taxaw voté loolu te loo xamante ni suuf la soo xamante ni dañ koo jël di ko def fi sabili la ki leen wooteel jàkka nag doo wootee doo voté ci ci euh, ci jumaa doo voté ci daara kooku doo voté leneen problème bi mooy li problème majeur mooy li am te mu nekk fi moo leen neexul mooy maire bi fi yàlla teg muy El Hadj Talla Diagne bañ koy fal en 2014 ca ñoom ñoo doon def recours pour mu bañ a falu indi nañ fi IGE chaque jour ñu ngi fi indi ak problème bëgg blocage ci maire bi tam mu tëleen mais su fekkente ni nii 46 conseils daje nañ wala quarante conseils daje kenn nit dong dong dong moo ca dul voté wala keneen wala keneen ku mu àndal leneen li ci des yépp dañuy voté mais kii mënu am une minute indi blocage fii sauf si ñuy wax tey jii di ci tuumaal kilifa mais kilifa boo koy waxal da nga koy waxal lu loo xamante ni lu logique la. te nga dañu bàyyi xel ni ay doomu aadama ñoo nekk ci commune bi ay nit da nga leen jox respect ki ñuy tuumaal di kilifa kooku amul seen jot du tontante ak ñoom ñëw na suñu commune bëgg noo jàppale yàlla dogal ñu jox ko fi suuf suuf soosee ña ko jox ji ñetti famille ñun ñoo dem sur le terrain enquête leen waxtaan ak ñoom laaj leen ñu wax ñu lu leer ñu def suñu rapport ñëw soumettre ko conseil bi conseil bi délibéré ko mel nu moom seul moo voté wul

Qui mom alalam nak ni dama bëgg li ñu ma ko ci kayit état mo jëkk wax ni képp ko am sa souf souf sa nga identifié ko ki indi alalam nag ñu identifié ko la ko war bu def ko ñun la war ko def li moy wax ji yi ñu le maire mi tok tay bu ñu ni tay alali lay lek alali mo tax am ay bien maire bi mi jël en 2014 mi ngeen mi ngeen ñetti camion mi ngeen ay car mi ngeen ay mi ngeen di bay di def moo jëkk a tabax étage Thiénaba euh, ci jaayante boobu doonagul maire kon lan moo tax ñuy soxor naan bien yi ma am ci suuf ci ci Thiénaba la ko ci maire bi la ko jëlee mais ñun dañuy liggéey liggéey la ñu xam mais ñi nga xamante ni nag du ñu liggéey dul boo waxee ñu ne du ñu dundee xeer bëgg a jël askan wi di leen njoñ ñu ñun du ñu ko ñuy tiital du ñu ko ñuy xoqotal li ñuy def ci lu leer lañ ko teg tey. fii ba keroog ñu fiy jóge lu leer moo fi am keneen koo xamante ni nag bëgg nga ñëw def ñu faas ñu taxaw jàkkaarloo ak yow ñi nga xamante ni ñoom nag seen ginnaaw di leen soxla nag ñi dañoo war a taxaw fees parce que mënoon yi da bokk ci mouvement présidentiel wàññiku di financer ay nit ñu taxaw di gàllankoor koo xamante ni dafa ànd ak président de la république di liggéey laqatu bi matu ko ku ñemee da ngay taxaw fés moo gën ngay laqatu ci ginnaaw yi nit di leen financer ñuy taxaw di wax koo xamante ni amul dépense mun ta organiser dara mais ñi leen di di leen financé ci suuf nañu fës ci terrain bi nag dañoo toll ci liggéey dañuy liggéey jant bu campagne ubbee ñu war a campagne den xam ñi mën den xam ñi ñimee dugg ci àll bi di leen xam ñi nungoo dugg ci brousse bi. Ndiaga dafa taxaw tuumaal conseil municipal bi te li mu tuumaal conseil municipal bi daf la mu tuumaa tuuma bu jë ba mu jëkkoon a wax daf ko weddiwaat parce que ministre du renouveau euh, urbain daf ñu bindoon lettre lettre bi maire soumettre jox ñu ko ñu mu ko. ñu jël fii 600 hectares yoo xamante ni dañu joxewoon woon avis favorable ci benn site bu nekk entre Mbayeen ak Emooje yàlla dogal site boobu moom mu taxaw ci média bi nii dañoo def délibération fictif loolu la waxoon. maire Talla Diagne ak conseil euh, maire Talla Diagne dafa def délibération fictif bërki Demba Ndiaye li mu taxaw waxaat ne nañ defaat nañ beneen délibération ci biir site boobu kon weddi na boppam. te ñun amul benn délibération délibération bii passé 23 dossiers la woon trois yi dañ ko rejeté la tax ñu rejeté ko mooy deux yi dafa nekk ci biir site bi ñu joxe woon avis favorable beneen bi ci des suuf la litige ba leeragul ñun suñ ko délibéré askan wa mën nañ cee rayante ñu jël ko ne teg de côté amul benn délibération bu ñu mës a def toujours ñun ñoo taal suñu oto dem toog ak askan wi waxtaan ak ñoom ba ñu leeral li ñu war a leer amul benn délibération bu ñu mës a def boo xam ne chef de village amuñu ci avis moom laa leen wax léegi di leen depuis 2014 jusqu'à nos jours benn délibération lañ fi mas a am boo xamante ni dañ koo rejeté bu jàllul te dañoo def recours ci sous-préfet beneen bu mu fi munti doon fa mu war a jaar jaar na fa Talla Diagne délibéré wul population bi conseil municipal yi ñooy délibéré parce que conseil municipal yi bu ñu leen réeré suñu rapport seen rapport suñu rapport ñoom ñooy xam ba xam lii ñu leen wax convaincre na leen wala convaincre le président li nga laaj. enquête yow sa bopp man yow mi président commission bi saa yu ñu demee la nga may wax mooy sa laaj daa nangoo xóot il faut ñu xóotal parce que bëgguñoo délibéré loo xam ne dañ ciy del si moomu taxaw wax loolu fii en 2013 en 2013 jël na fukki dossier ak juróom-ñaar téye ko ni dañ koy jàllale à la fois wal quraanil azim billahi wallahi taala yi man ak Talla Diagne mi ñoo taxaw lànk ni duñ ko voté te booba am na ci dossier yoo xamante ni ci biir sourire bii nga xamante ni dañ ko joxal conseil régional ci la nekkoon mu ne dañ koy jàllale à la fois luñ ca jógee tey jii ba léegi coow loolu am mi mi mi mi ngi topp ña ko délibéré woon. kon moom tey su taxawee naan dañoo jox dañoo sa jaay suufu canaba dañoo sànq suufu canaba waxul dëgg parce que li muy xamu ko lenn mooy problème am nee na du du dee xeer bu lekkul cere dina ci xëpp suuf mais ji cere moom du ci xëpp suuf munu ci tus. mais ci conseil municipal en en deux mille. treize bi en deux mille treize boobu Abdou Gningue moo fi nekk. Hmm. comme président communauté rural man mii booba membre conseil conseil rural laa woon. Ndiaga aussi conseil rural booba Pape Mbaye moo doonoon président commission domaniale Khalifa Anne moo fi nekkoon rapporteur. te la Ndiaga doon def moom moom moo ca àndoon fukki dossier juróom-ñaar ñu téye ko jàllale ko à la fois fii ci commune ci ci ci maire bi devant nous. moo tax keroog bi ma ko waxee. ba ñu génnee bañ ne ko dañ waa daw question góor a jaan bi ko ko wax dañu ko booba ñun ñoo aye woon mais loolu ñun rus nañ koo def parce que naw nit ñi suñuy nawle lañu buñ leen defal mukk loo xam teguwul ci yoon. parce que kon seen génn dafa am lu ci laxasu dañuy waajal la élection yi di ñëw local yi wala. li ci laxasu mooy ñoom ñi nga xamante ni ñoo taxaw di def lii ba ñuy fal Talla Diagne déposé nañu recours Talla Diagne toog doon ci maire bi ñu déposé waat recours convoqué nañ fi IGE mu ñëw fii. lépp loo xamante ni nii dañ ne woon Talla Diagne du falu yàlla dogal mu falu ñu ni du am du liggéey yàlla dogal mi ngi liggéey di am résultat léegi nag la ñuy bañ mooy mu am résultat bu mat sëkk ba ëllëg su taxawee laajaat ñu jox ko loolu la ñuy bañ loolu nag munuñu ci dara yàlla mooy fale Talla Diagne ñi ko bëgg ak ñi ko sopp ak ñi ànd ak moom ñoo ko ñoo ko fal waaye lay tax mu toogaat fii moo koy liggéey. Ndiaga dafa wax ni commune bi depuis en 2014 bi ñu fi yàlla tegeeg tey dëkk boo dem defuñu fa 10 000 francs loolu waxam la parce que nag ñun bu sañoon du ñu am résultat mais je pense que Talla Diagne bi muy ñëw ci commune bi ma jëkke ci wàllu électricité booba su ma juumul commune bi 38 village ak 17 hameaux yi fi nekk booba 9 village ñoo fi am courant 9 village seulement tey jii fexe nañ ba 15 villages courant dem na fa actuellement yoo xam xamante ni lépp am na yoo xam tàkk nañ am yoo xam tàkk ci des quinze village te lépp nag yàllaa ngi dogal benn village la ci PIDC raccordé benn village leneen li ci des yëpp yitteem entre moom ak ñi nga xamante ni ñoo yor courant bi ñooy taal suñu oto fii di jóg di dem pour pour lijjanti ji loolu. kon loolu bu mu nee bu waxee loolu dafa wax lu ko neex ecole yi am na fi ecole yoo xamante ni tey ji tabaxal na leen ay salle de classe. am na fi école benn école bu nekk ci commune bi yi fi doon jooy problème mu toilette yëpp def nañ fa su taxawee tey naan amul benn dëkk boo xamante ni Talla Diagne def fa 10 000 francs day wax lu ko neex addition d'eau dëkk amul benn village boo xamante ni tey ji mi ngi ci commune bi amul ndox l'eau potable amul forage am euh, château d'eau bii nga xamante ni waa plan ñoo ko financé tey jii muy forage deuxième forage bu troisième forage bu cene ba ubbi na te loolu Talla Diagne moo ko lijj moo moo ko moo ko def kon tey su taxawee wax loolu day wax lu ko neex beneen bi ci des mooy lépp wàllu social li mu wax ni Talla Diagne xaalisu askan wi lay jël di ko def ci social mais loolu c'est pas vrai je pense que kenn ku nekk xam na commune Thiénaba ni mu tëddee bokk na ci tey ji communes yi gën a ndóol ci département Thiès mais yàlla defal nañu sutura yàlla bàyyiwuñu ak ñaanu mag ñi ak yittey doomu aadama yi ak moom effort am ba tey jii lépp loo xamante ni waaye ñëw na soumettre ko ko lam ca man dina ko def kon la muy taxaw di wax ni xaalisu maire bi 600 millions 600 millions ñun bi ñu fi toogeegul léegi suñu budget àggagul 600 millions kon nan la nan la mën a détourner 600 millions nit ki booy wax da ngay wax te yàlla tax booy wax da ngay wax te yàlla tax lenn nag dafay nuru coxor te nit du soxor nit ku baax du soxor lépp lu waay am lépp lu yàlla ma sedd nit da nga ko war a yéene wax naa leen fii léegi di leen Talla Diagne ba muy jëlagul maire bi fii la ko yàlla defaloon teraanga. dafa judd ci teranga mag ci teranga di dimbali nit ñi ki yàlla dogal mu doon transporteur doon baykat ah doon fournisseur yàlla jox ko teranga nga ni teranga ji da koo sàcc da koo jël au contraire moom bi ñu du dund ay xeer ay xeer bu soobee yàlla mbaxalu xeer lay añe moom ndax la tax mbaxalu xeer lay añe amatul fenn fu mu jëm tey jii la mu taxawoon di ko wax di conférence de presse benn conseil moo fa nekk benn conseil municipal moo fa nekkoon ak moom muy ñaar keneen nekk fa conseil municipal te tey jii një mbooloo maa ngi ñuy toog conseil municipal yaa ngi ñuy toog Aliou Ngouye Ndiaye ba muy tuumaal conseil ba dëkk ca dëkk baa nga nee toog muy na koy jóg te lépp lu ñu fa def xam na ko kon nit ki dangay wax te yàlla tax beneen bi ci des mooy yàllaa ngi dogal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñoo fi toogoon yàlla jël tey ji la ñu yoroon jox ko ñeneen ñu toog fi nañu ànd ak ngor te muñ te xam ni yàlla li muy dogal dogal na ko ba pare lekkoo cere ji nag bëgg jee xëpp suuf loolu gënul Gora Ndiaye bu taxawee ni Talla Diagne dafa jël 10 hectares may ko may ko Aly Ngouille Ndiaye Talla amul suuf su muy maye Talla Diagne amul suuf su muy maye moo tax ba mu waxee loolu def ko ci def def ko ci Facebook bi ma tontu ko ni ko nit da ngay wax te yàlla tax te yow délibération ba muy am fekku la fa woon. Ndiaga Dieng nee na moom mooy mooy mooy défendre askan wi. li ma mën a xam de mooy lu mu yor benn fonction bu mu yor mooy conseil municipal la xaw ci moom leneen nee woon naay ci mouvement présidentiel bi la bokk te tey jii ba nga xamante ni yàlla dogal na élection référendum ñëw moo fi représenté woon ñu doon voté non. élection yi passé biñ ci demee moom moo taxawoon ak ñi mu àndal ak ay alliés tey jii di woo di lancer ay message pour que ñu voté contre APR te ni ci mouvement présidentiel bi la bokk moom daal taxaw na. ngir ni Talla jaañ du fi liggéeyee Talla Diagne warut a yor mairie bi Talla Diagne du am jàmm lii daal la fi nekkee dugti du keneen nag du leneen lu mu drub lu mu lu mu fi représenté du lenn représenté wu fi lenn lu dul koo xamante ni day jóg di yàq di dugg ci xeli nit ñi parce que conseil bi passé ba mu taxawee ba mu jëkkee jël parole dafa jóg bëggoon a lëre conseil yi mhm. bëgg leen a détourné man leen seet leen ba fi njaga nekkee tey est ce que mas naa voté benn délibération ku ko xam yëkkatil sa loxo kon kooku bu mu ñu tardé li mu nekk ma ñu nit lañu nekk nañ ca nekk kii daal mooy ñi kenn nit koo xamante ni dafa jóg ngir yàq kenn nit gil koo dafa dafa jóg ngir askan wi munul munul nag parce que tey ji su woote woon ñaari nit du du ko gis ñaari nit ñay ñay làqatu ci ginnaawam nag ñooy jël seeni nit dem ñi leen dem leen coiffé ko dem leen accueillir ko mais ñooñu nag ñoo bu ñu ñimee nañu taxaw jàkkaarloo ak ñun ñun nëbbutuwunu làqatuwunu dañuy liggéey ñun la fi yàlla teg ñuy liggéey fii ba suñu mandat di jeex nag kenn mënu noo gàllankoor ku nu bëgg a gàllankoor dañ ko jëflante ak yow insha allahu rabbi bismillahi rahmaani rahim Euh, permettez-moi d'abord de remercier le bon Dieu, de saluer les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Euh, je remercie aussi la presse qui nous donne aujourd'hui cette opportunité pour apporter des éclaircissements, voire même des démentis, suite aux accusations tenues par un groupe de personnes que je respecte beaucoup. Donc, euh, je m'appelle Adam Diop, le président de la commission des finances. Euh, je crois que nous, nous devons donner un peu plus de considération aux gens, de surcroît, des conseillers comme vous que vous traitez comme des minables, qui ne se sont basés sur aucun document pour faire des délibérations. Non, je crois que Ndiaga doit arrêter. Car même s'il se considère comme le monsieur de la décentralisation, même si c'est lui qui détient, qui connaît tous les textes de la décentralisation, nous, nous n'avons pas envie de lui. En tout cas, nous devons savoir raison garder. La commission domaniale dont il a parlé, cette une commission que je remercie au passage, euh, qu'il insinue comme une bande de trois personnes. Euh, je, lui rappelle que cette commission a, été installée comme toutes les autres commissions, euh, dans un consensus parfait aussi. Et ils abattent un travail inlassable et euh, avant chaque session de délibération, ils vont sur le terrain, ils font des enquêtes et nous amènent un rapport détaillé qui nous permet de, voir, de, savoir les tenants et les aboutissants afin de pouvoir délibérer. Euh, donc, euh, je crois que je vais revenir aussi sur le cas du dossier du ministre Alingou et dont il a parlé. Je crois que M. Alingou est un citoyen comme tous les autres. S'il a des terres dans la localité, s'il veut les mettre en valeur, je crois qu'il doit venir à la mairie. Et s'il vient à la mairie avec un dossier vraiment complet, nous devons statuer sur le dossier là. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous n'avons pas nous n'avons aucun problème. Des enquêtes ont été menées auprès des concernés, du chef de village et des notables du village. Et je crois que tout a été clair. Et le rapport a été détaillé. Et c'est sur cette base-là que nous avons délibéré. Donc je crois que dans ce cadre-là, il n'y a aucun problème. Nous n'avons peur de rien. Nous n'avons rien à cacher. Et je crois que Ndiaga a été mis maintes fois en minorité. Aujourd'hui, ce qu'il sait faire, c'est prendre la presse et tenir les gens en otage. Parler de tout et de rien. Accuser les gens. Donc je crois qu'il doit arrêter. Ce qu'il doit faire, c'est aller vers les populations avoir une base solide. essayer de convaincre les gens pas ces idées peut-être. Mais je crois que c'est pas à travers la presse qu'on arrive à gagner la, commune ou bien des choses comme ça. Donc euh, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il y a des honnêtes gens qui sont là, qui sont en train de travailler pour les populations de Tchanaba.